jàmbaaru jàmbaar yi Abdourahmane Diouf se prépare aouzu billahi min alsheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum ndawi Sénégal il y a dix ans en 2011 2012 fii la ñu taxawoon mobiliser doomu Sénégal pour que Sénégal tegu ci yoon ñu respecter nit ñi respecter constitution bi comme en 2000 on l'avait fait yéen doomu Sénégal yi mosu leen a soppeeku ndax même dynamisme bi ngeen amoon en 2000 moom ngeen am en 2011 2012 moom ngeen am en 2022 2023 jëm 2024 lan moo soppeekuwul mooy la classe politique il faut que ñun ñi nga xamee ñoo am yéene bëgg dimbali Sénégal que ñuy coordonner suñuy kaddu. ak suñuy jëf suñuy yéene méngoog yéene Sénégal tant qu'il n'y aura pas une adéquation entre li sénégalais yi bëgg ak li politiciens yi di wax réew du mos baax te gor mooy koo xamee ne bu toogee fii y'a vingt ans li mu doon wax wax y'a dix ans bu góorgóorloo ba ñëw en deux mille vingt deux war na góorgóorlu ba doon doon la même chose et c'est ça qui est triste on ne vous rend pas hommage on ne vous respecte pas on ne respecte pas ces milliers de sénégalais yi nga xamee ni bi mu laajee deret ñoom ñoo ko joxe bi mu laajee jom ñoom ñoo ko joxe bi mu laajee fulla ñoom ñoo ko joxe et trop c'est trop il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête parce que lii raam si ñett bi la jëm et di jël alalu nit ñi di jël coono nit ñi di jël deretu nit ñi pour rien tout ça c'est vraiment monstrueux et j'espère que le Sénégal dina jëm sa kanam jërë ngeen jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum. après invité surprise lañ am. asalaamualeykum mbokki Sénégal. asalaamualeykum mbokki f dañu bëggoon fàttali suñu bopp fàttali président Macky sal ne koo xam ni amuloo droit am troisième mandat. amuloo droit am troisième candidature. te boo amul droit am troisième candidature. amuloo droit am deuxième quinquennat boo amulee droit am deuxième quinquennat amuloo droit gàddu sa ay bagages ànd ak sa ay juris bind sa ay lettre dem si conseil constitutionnel na leen da ngeen di demander pour ñow nga nekk candidat nous voudrons que le président Macky Sall et toute la communauté internationale comprennent que quand on n'a pas droit à une troisième candidature on n'a pas droit à un troisième mandat Quand on n'a pas droit à un troisième mandat, on n'a même pas le droit d'organiser un dialogue dialogue boo xam ne ay mbiru naxaate la pour négocier sa troisième candidature wax ji nag jarul muy gudd ñun dañu bokk ci ñi nga xam ne du ñu bàyyi président de la république Macky Sall muy dem conseil constitutionnel est-ce que da ngeen d'accord pour ñu bàyyi ko mu dem ci conseil constitutionnel dafa am góor gu baax bu ma wax ne fi ngeen toll ak Macky Sall ci mbirum mandat bi ñett rek moo ci am il faut ngeen naxante boo leen naxantee sottiwul ngeen neexalante boo leen neexalantee sottiwul ngeen defante je pense que nag ci defante bi lañ toll actuellement I just would like to him to let him know to the international community that the President Macky He has no right to run for a third term. We would like to let them know that President Macky has no right to put our country in trouble for personal reasons. And we would like to let him know he has not right to undermine our peaceful life of way of life in Senegal. Président de la République Macky Sall du bokk du bokk du bokk jaaraama Dieyla Kébé sa carte bi ngi fi ak sa carte Wave Dieyla Kébé DJ salaamaaleykum mbooloo mi yaakaar naa ne tey moom ñëpp seen xool yi sedd na ndax teewaay bi nga xam ne moom la fi sénégalais yi teewu dama leen di laaj benn question avant may commencer ndax am na benn ci sénégalais yi ku ma mën a wax Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne lan moo tax ñu tëj leen ci kaso bi est-ce que xam ngeen lan moo tax ñu tëj leen ci kaso bi parce que Macky Sall dafay utiliser la justice pour di tëj ñi nga xamante ne nii ay activistes lañ ak ñi nga xam ne dañuy xeex pour seen réew li ñuy wax le président nag mooy te dama bëgg ñi nga xam ne dañu nekk ci mbooloo mi waxuma leader yi toog waxuma yéen ñi ñëw pour marche bi waaye ñi nga xam ne ay RC lañ te Macky Sall yónni leen. dama leen a bëgg a yóbbante si Macky Sall nee leen ko bi ñuy xeex fii 2011 ñun ndaw ñi nga xamante ni nii xëy na dañu toogoon suñu kër wala comprendre ñu woon xeex bi tey jii ndaw ñu màgg nañ ndaw ñooñu màgg nañ te nee nañu nee nañu dinañu jël seen responsabilité ba mu mat sëkk pour lépp loo xam ne laaj na ko pour contre li nga xam ne moom mooy troisième candidature bi pare nañ pour joxe seen bakkan pour seen réew comme ni ko Mamadou Diop dafa woon comme ni ko quatorze personnes yi nga xam ne ñoo dee événement defee woon mais comme ni ko ki nga xam ne moom moo dee ngor def woon kon ñun yaakaar naa pare nañ est-ce que pare ngeen est-ce pare ngeen dégguma de est-ce que pare ngeen pare léegi nag li des mooy dootu ñu nangu benn yoon Macky Sall di utiliser si siis pour di tànn candidat yi nga xam ne ñoom ñoo war a bokk ak yi war a bokk 2024 far force fara force président Khalifa Sall dafay bokk 2024 far forte fala forte Karim Wade dafay bokk waaye nag waaye nag xam ngeen li Macky Sall di waajal pour fexe pour éliminer candidature Ousmane Sonko est ce ko seetaan est ce que di ngeen seetaan loolu est di ngeen seetaan Sonko kon nañu jël suñu responsabilité taxaw te xam ne Sénégal nous appartient par Macky Sall seule la lutte asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum la jeunesse du Sénégal xam naa ne Macky Sall tey du nelaw de ndax lii moom amul tontu bu gën a bu gën a saf tontu bii ci projet euh, inconstitutionnel bi ma am jëm ci candi troisième candidature Macky Sall maa ngi lay waxal man Aliou ndaw xam nga bu baax a baax a baax. takkal say bagage fukki weer moo la dese takkal say bagage nga génn Sénégal suñu Sénégal ko soo ko defoon ay or tamit sox bëggatul sa nguur gi nit ñu doyal nañ sa nguur gi jëlee say bagage nga jibi te ñu bàyyi Sénégal yëpp képp ku war a bokk na bokk à commencer par Ousmane Sonko xam xam naa ne xam naa li ñuy laaj mooy mooy exécuter l' ordonnance de prise de corps bi ñu jël bi ñu def ci ordonnance bi ñu ko renvoyé dans l' affaire Adji moom la waajal na Sénégalais yëpp xam ne a ah, ci arrêt bi ñuy ah, bi ñuy renvoyé Ousmane Sonko devant dans l' affaire Adji Sarr dañu prévoir l' exécution d' une ordonnance de prise de corps na ko ñëpp bañ na ko ñëpp ànd bañ waaw bon nag wasalaam jërëjëf.